Thank you so much. président li nga wax nii dafay wax en français président dafay defar leen déclaration en français. waaw li ñu lay def da nga lay laaj lu ñaar baaraam. waaw si ñaar bi c'est la dernière. c'est là non c'est la dernière non c'est la dernière. Sénégal bu mel ni yow la bëgg. lañu soxla ku am expérience lañu soxla ku bëgg réewam lañu soxla kii di yàlla nga am ndam Idrissa Seck yàlla nga am ndam nii nga génne te yàlla nga ko duggee pare ci barke Seydina Mohamed Sénégal am na rëcc leen président rëcc leen nit ku baax rëcc leen yow la ñu bëgg yow la ñu doon yow la ñu doon fa yow la ñu soxla yow la ñu àndal dugal la pare incha allah kii moom li ma bëgg ci Sénégal kii ma koy liggéey incha allah. jàmm ji ci Sénégal yaa koy liggéey. doxal gi ci yaa koy liggéey. bis boo wéree réew mi dinañ xam ne jàmbaar dëgg yor na Sénégal yàlla na dugg yow ma kenn it rek laay toog ku am seen liberté ma bàyyi seen li ma ñor kii laa kii laay toog kii laa bëgg mooy sama papa bu ma kenn daal di ne kilifa gi ne yaa bëgg doyen bi sax ba léegi maa ngi ak yow te nii laay ànd ak yow ba pare incha allah. merci beaucoup merci beaucoup les gars war na koo seet si ñu pare war na koo ñëw s'il vous plaît. Merci beaucoup.